Euh, les opérateurs économiques da ngeen liggéey ak yenn institution euh, financière est-ce que tension politique yi am na benn impact bu muy bu muy impacté ci seen liggéey mais impact bu grave ban boo xam ne mën nañ yàq sa alal mën nañu toj sa butigu mbokk su sa butigu ma client mën na yow sa waat sa alal boobu sax ñu dal la léegi nag problème bi ci am mooy yow su fekkee yàq nañ sa alal te nga jëloon alal ji ci banque yi yaay fay yaay fay boo fay ñu jaay say loolu mooy risque te banque bu ñuy leble ba lu mel ni ñëw dañuy xoolaat seen seen seen seen xaalis bi ko joxe la preuve man duñu ma téye kaso j'avais un euh, des des finances des lignes de crédit de 4 milliards à la SGBS am benn sax ñaari traite yoo xam ne avalisé nañu ko mu war ñu war échéance bi jotagul mais bi ñu may seet si prison dañoo provisionné ñaari encours yi te ay traite la échéance jotagul man déposé naa garantie yi jël nañ déposé jël nañ ay frais ay millions ci signature ñu ñëw di ma seet si ñu xam nañ ni xaalis compte bi am na xaalis ñu provisionné seen i encours soog maa seet si ñëw fay kat euh, te génn boo fayul doo génn te yow on passe compte sur toi nanga mën daa am gis nga liñ ñu leen wax may leen d' kon fay leen. ma génn daa topp bi ma génnee qu'est-ce qu'ils ont fait retirer la ligne. cest bi ñu ñëw intention yi ñu ñëw amoon mooy se retirer de de de de Moussa Wattane mooy provisionnement encours yi ba ñoo fay loolu un milliard nga génn yaakaar da ngay jël sa ligne wallaahi booba la ñu retiré ligne bi pendant deux ans et demi te ligne bi ci laa doon liggéey moom mooy sama li ma daan liggéeyee ñu nangu ko. d'accord léegi nan lay def ma rabattre ci fournisseurs yi fournisseurs yi yóbbu sama xaalis loolu yëpp c'est des conséquences de l'arrestation c'est pour ça que je réclame quinze milliards et de plein droit regarde ce que ce que ce que à l'état bu ko fayul damay continuer rek mais mën na ko fay. déposer nga mu ngi ci mais déposer plainte doo ko prendre damay déposer sama réclamation ci président. moom juge la arbitre la mooy signé mooy nommé sax la magistrature kon <laughs> magistral juge la lépp la président.